dafa am ay temps ci ginnaaw ma ñëwoon ni leen dama bëgg ñu ànd jàppale président Macky Sall bañ koy wax ñun booba defe naa ni avril 2018 la woon kenn gëmul woon ni président Macky Sall dana mën a gagné au premier tour ñun dès le départ lañ wax ni ca avril 2018 dañuy jàppale président Macky Sall ngir mu gagné au premier tour ma ñëw fii ci yéen ma baamtuwaat ko ci décembre 2018 le 22 décembre 2018 bi ñu def lancement mouvement MRCD nawlante ma wax leen ni leen dama bëgg ngeen jàppale ma yéen samay mbokki new ñu woteel président Macky Sall ñu woteel président Macky Sall ngir mu gagné au premier tour loolu nag yàlla dogal na ko bi ko yàlla dogalee itamit dellusiwaat naa ci yéen dellusiwaat naa ci yéen wër fépp fu ma jaaroon ni dama bëgg ngeen jàppale ma ñu woteel président Macky Sall ngir mu gagné au premier tour ma jaaraat fa sant leen gërëm leen fii ci Guinguinéo ba ngeen ni ma ah néew na ay politiciens yu def yi ndax politiciens yi ñun ñi ngi leen di gis lu dul su campagne électorale jotee su campagne bi jeexee dootuñu leen gis ma ni leen ñun de politique beneen la ñuy indi parce que politique baax na waaye su politique weesoo tamit war na am loo xamante ni citoyen bi dana ko yëg ci boppam ci politique boobu muy def loolu moo tax bi wote jeexee ñu xalaat li nga xamante ni moo tolloo ak suñu doolee ah ñu làmb li nga xamante ni moo ñu gën a jege li tubaab di wax li nekk à notre portée ñu def ko mooy former suñu jigéen ñi nga xamante ni ñoo bokk ci mouvement bi ñu waxtaan ak soxna Sali ñu definir une cible maanaam ñu sàkk benn cible boo xamante ni dañ ni danañu forme téeméeri jigéen biñ ko defee ñu ni dañuy njëkkee cent yu njëkk yi ñu ni dañuy njëkkee téeméer dañuy njëkkee ñaar fukk ci ñooñu su weesoo ñu defaat yeneen ñaar fukk ba téeméer yi mat ñaar fukk boobu mooy ñaar fukk bii ñu njëkkee te ñoom ñoo def formation ba produir lii nga xamante ni moom moo nekk nii ci suñ kanam kon nag lii ñun mouvement MRCD nawlante mouvement républicain pour la citoyenneté et le développement lii la gëm lii la def itamit muy politique ndax ñun li ñu jàppe politique mooy fexe ba askan wi yëg boppam ci li muy def te ñu tudde ko politique mooy lijjanti ak ak yelleefu askan wi ba mu jot ci lii nag tàmbali la suñu paree incha allah ci femmes yi ci téeméeri jigéen ñooñu ñu ciblé ba pare dinañu jàll ci jeunes yi fexe ba ñoom it ñu am formation bi nga xamante ni moo méngoo ak seeni bëgg-bëgg ñi ngi ñaan daal autorités yi taxawaay boobu daal la ñu bëgg ñu dimbali ñu ci accompagnement boobu la ñuy ñaan ci ñoom ah ñu taxawuñu ba jigéenu ngi Guinguinéo ginnaaw bi ñu leen formé ba pare ñu mën a am financement yi nga xamante ni moom la ñuy joxe te sénégalais yépp bokk ci yem ñu fexe ba financement yooyu egsi fii ci Guinguinéo di ñaan itam nii ñu ko defee fii ci Guinguinéo suñu moroomi politiciens yi nga xamante ni ñoom ñoo jóg ngir jàppale président Macky Sall ñu jàppale ko ci politique bu mel nii maa ngi leen di gërëm di leen sant politique bu amal njariñ askan wi. ñi doon def formation président jàmbaar lañu naka am na ñu doon wax ne une tonne dugub vingt personnes mënu ko liggéey. mais ñun bu ñu demee di def formation parfois dañuy def formation 10 jour 10 jours bi mun nañ ko def ci cinquante kilos que mun nañ ko def ci 100 kilos man nag yàlla am na lu ma mun a lu ma may ci sama liggéey ba une tonne mun naa ko liggéey ci semaine kon sant yàlla présent une tonne dugub bi femmes yi liggéey nañ ci caagri 2000 cere couscous 2000 liggéey nañ ci araw 1000 liggéey ci sànqal 1000 liggéey nañu dugub boo xamante ne 1000 précu la ba nga xamante ne moom mën nga ko sóor ci palaasu ceebu jën boo toggee sa ceeb ba mu ñor sa nga ne damay togg ceebu yàpp walla ceebu jën war nga mun a jël dugub boobu sóor ko ci palaasu ceeb bi jigéen ñi liggéey nañu loolu jigéen ñi liggéey nañu sànqal def ko ñeleŋ ñeleŋ boobu ñu def am na plat boo xamante ne américain ñoo ko tuddee sànqal royal mooy sànqal boobu mun nga ko jënd tey kaas ko tuuti tayaat ko bomb ko togg sa soosu yaasa day mel ni couscous marocain booy lekk. jigéen ñi defal nañu brésil de maïs bi nga xamante ne dañ koy def suum bi jigéen ñi defar nañu couscous maïs jigéen ñi defar nañu sungufu ñebbe pour akara jigéen ñi defar nañu ko danga ne yore responsable boo xam ne def leen di jàngal ni ñuy nappe. ku ñuy jàngal na ni ñuy nappe dangay góorgóorlu ci liñ lay jàngal Cerno nag wàccoo na ak équipe 1 équipe 1 Cerno wàccoo naa ak yéen yéen na yéen a ci des ñaanal yàlla salim yi nga xam ne moo ñu war a wan liggéey bii mënuñu ko woon suñ kër ñoo ngi koy doog a gis yàlla na ko yàlla fayal boppam yàlla yokk ko xam-xamam maa ngi ñaanal ki nga xam ne moom mooy Thierno Thierno Ngom mi nga xam ne moo jël dooleem def def ci ñëw di ñu jàppale war nañu nag li ñuy nappee waaye bu moom bu ñu may jën lii nag moom mooy alal ji ndax politique gu xaalis lii moo ko gën ëllëg nga man demal sa bopp ñu oola nga mën a demal sa bopp loolu mooy lii maa ngi sant nag sama xale yi ndax ñoom faagre kafagree man fecc loolu nañ ma fa sax tam loolu warut ma ndax seen loolu tey bu ñu boojoon rek ma jóg ndax ñoom dañoo am jàmm am salaam bëgguñu ñu yëkkati dara lu ñu leen wax ne def leen li ñu def leen jërëjëf euh, Thierno Ngom yal na yàlla fay la ci barke Seydina Muhammad